salaamaaleykum mbokki internet yi daleen ak jaamu Sen Sport 221 lik en sénégal dañ koy tàmbalee ak match yi nga xam ne moom lañ doon amal ci wàllum cinquième journée bi Teungueth FC dafa match nul ak Dakar Sacré-Cœur zéro bi partout AS Pikine moom dafa dóor jambar ben bal ci dara Casa Sport match nul ak AS Gorée zéro bi partout Stade Mbour Guédiawaye Football Club un bi partout Jaraaf Sonacos un bi partout Jamono Fatik Linguère zéro bi partout Génération Foot US Ouakam 1-0 bu ñu xoolee nag li nga xam ne mooy victoire yi néew nañu lool ay match nul moo ci ëpp rawatina bit yu néew yi nga xamante ni voilà ñu ngi koy seetlu kon mel na ni Sénégal problème mu marqué ay bit la ñu am 0-0 yi daal xaw nañu sakkan un bi partout ñaari victoire ci am AS Pikine ak ñii di génération foot te ku nekk benn wàll ci dara la dal di gañe ci jogante yooyu la bu ñu xoolee classement bi jamono bi nii la dal di tëddee Dakar Sacré-Cœur di des ci bopp classement bi voilà moom moo jiitu dal di am lu toll ci 11 Teungueth FC mooy ci topp am lu toll ci 9 points jamono Fatick moo nekk ci ñetteelu place bi 7 points la dal di am Stade Mbour ak Casa Sport ñoo nekk ci suuf bu fi championnat bi yemoon tey ji dañuy wàcc bu ñu xoolee nag ci wàllum Ligue 2 ba tey am na match yoo xamante bokk na ci li nga mooy cinquième journée bi Demba Diop dafa dal daanu ci kanamu NGB maanaam ñii di waa ñaari tali ñoo dóor 1-0 ñii di waa Demba Diop Amitié dal daanu ci kanamu Seneps ko dóor 3 buts dañoo match nul 0 bi partout Aslem dafa dal di dóor Oslo 5 buts à 0 AS Douane Ndiambour moo ko fekk dal di koy dóor 1-0 Walidaan Duc moo ko fekk dal di koy dóor 2-0 AGEL bu Rufisque ak Thiès FC 0 bi partout fii moom bii di xaw nañu sakkan ci Ligue 2 bi mbiri xawoon na jax voilà bu ñu xoolee li nga xam ne mooy classement bi foofu nag ñii di Ndiambour ñoo dal di jiitu 11 dal di am ñoom itam ñii di ñaari télé ñoo ci dal di topp am 9 Oslo ci ñetteelu place bi 9 la dal di am Kër Madior ak Demba Diop ñoo nekk ci suufa suuf ba fi championnat bi yemoon tey ji dañuy wàcc noonu la jaaree daal dem bitim réew daal wax ci match bi nga xamante ni ji ñoom di waa Manchester United doon nañu ko am ci English Premier League muy match boo xamante kat bu amoon solo la ci ñoom ñoom sax ñoom mujjee gañe seen diggante ak Everton bu Idrissa Gana Gueye 3 bi à 0 la ko Man United daal jox ki nga xam ne nag moo gën a ràññeeku 3 minutes képp la ñu dal joué mu dal di marqué but bu rëy boo xam ne moom la ñuy waxtaane ba léegi lu ñuy wax overhead kick moom la dal di def voilà moom kii di Garnacho bii bu rëy la marqué waaye nag kii di Marcus Rashford dal di marqué penalty yi ak ki nga xam ne mooy Anthony Martial marqué benn but ci jongante googu loolu mooy ñetti bal ci dara yi nga xamante ne voilà Manchester United dal dinañu koy jox Everton ci ngoonu tey jilee bit bi nga xamante n nag kii di Rashford dal dina koy dugal ab penalty la ki nga xamante ni euh, Bruno Fernandes moo dal di jox moom mi nga xam ne sax moo waroon dóor bal bi moo dal di jox ndax nee na dafa soxla ki nga xamante ne mooy Marco Rashford dal di jotaat confiance am gannaaw bi nga xamee ne gis nañu ne bi saison bi tàmbali ak léegi li marqué ci bal dafa néew lool di Rashford mën nañu wax ne xaar nañ ko ba sonn waaye moom daal moom marqué ay but jafe-jafeem la léegi nag ne dafa bëgg mu di dégg am di Bruno Fernandes moo dal di wax lu nu mel li bëgg mooy Marcos dal di jotaat confiance am te penalty bi nga xamante jox ko mu marqué ko loolu dana tax na match ci dal di wane boppam kon loolu mooy li nga xam ne daal dina koy wane ci jogante googu moom mi nga xam ne mooy capitaine équipe boobule ba tey bu ñu xoolee foofu la ci Espagne am na match yu am solo yoo xamante ne amoon na ci bokk na ci Real Madrid bi nga xam ne tey ji dafa dal di yéeg ci bopp classement bi gannaaw victoire bi nga xam ne am na ko ndax ñoom dañ doon joué seen diggante Cadiz Real Madrid moo fekk Cadiz dal di koy dóor 3 buts à 0 Rodrigo moo amal ab doublé Jude Bellingham marqué benn but bi ñoom ñaar ñi ñëpp dañoo jóge ci blessure Rodrigo nag tey jii mën nañu wax ne moo gën a ràññeeku ci match boobule ndax ñaari bali moo ko dal di dugal jox ko tam ki nga xamante ni mooy Bellingham benn bi mu dal di koy marqué voilà fi mu ne nag bu ñu xool kon Jude Bellingham dafay wéy di nekk li nga xamante ni meilleur buteur bi mooy jiitu gaay ba léegi la ma leen jiitu woon dafay yokku dem ndax fi mu ne 11 but ci li nga La Liga di nga am all competition voilà dal dina marqué lu ci 14 but ak 3 passes décisives ci 15 match yoo xam dal na koy dugg ndax dana nañ ki nga xamante mooy Cristiano Ronaldo ak kii di Di Stefano ku ci nekk ci ñoom bi nga joué premier match ak Real Madrid marqué wala romb 13 waaye ki nga xamante mooy Bellingham jamono bi moom marqué na ci lu toll ci 14 moo tax dafa daaneel record yooyu nga xamante ne ko fekk jamono bi kon moom tàmbal na dugg ci taarix moom kii di Jude Bellingham bu dee ki nga xamante mooy Rodrigo nag jamono bi wax nañ leen ko tey comme doublé la amal ci match boobu fi mu gis nañu ne moom dafa ràññee loolu yaram moom tàng na maanaam daane ci forme ndax bu ñuy xool ne nañu ci cinq derniers match yoo xamante ne joué na ko ak Real Madrid wala trois derniers match yi daf ci marqué cinq buts daf ci ram du toll ci quatre passes décisives neuf buts moo ngi ci tànkam moom ki nga xamante mooy Rodrigo bi prolongé contrat bu yàggul voilà neuf buts ci trois matchs mën nañu wax loolu cinq la daal di marqué daal di joxe li nga xamante ne mooy quatre passes décisives moom kii di Rodrigo bu ñu xoolee nag jamono bi ñii di waa Real Madrid ñoo yéeg ci li nga xamante ne mooy bopp classement bi waaye toogam néegandeku la dañuy fanaan foofule suba la ñii di waa Girona war a football seen diggante ak Athletic Bilbao match boobule nag bu fekkente ne Girona ñoom dañ ci am ndam dañuy yéegaat ci kaw ndax ñoo jiitu woon comme joué guñu Real Madrid daf koy jiituwaale lu toll ci benn poñ voilà bu fekkente ne nag ñàkk na su boobaa kon FC Barcelone loolu mooy top 4 ci li nga xamante mooy dégg La Liga bu Espagne bu ñu xoolee ba tey fële ca Italie am na match bu rëy bu fa amoon bokk ci Inter Milan bi doon joué digganteem ak Juventus muy premier ak deuxième nga xamante ñoom ñaar jamono bi ñooy bokkante ci bopp classement bi Inter xam ngeen mooy jiitu waa Juventus da ko bëgg dab jamono bi nag ñu doon joué match boo xamante ne ñuy xool dañoo match nul un bi partout waaye kii di Lautaro Martinez dal di ñëw génnee bit boobule égalisé ci 33e minute ñuy daw ba match bi jeex ndam demul ndam dikul kon noonu la mujjee bu ñu xoolee kon ñii di waa Inter ñuy wéy di des ci bopp classement bi ak 32 points ñii di waa Juventus ci ñaareelu place bi 30 points la ñu am AC Milan ñi ci ñetteelu place bi jamono bi 26 points Napoli moo nekk ci quatrième place bi ak 24 points buñ dellusiwaatee ci match boobu nga xam ne Real Madrid doon na ko am tey jile ki nga xamante ne moo doon góolu xam ngeen mooy Ander Lonin bi nga xam ne moom jamono bi moo fa wute Kepa Arrizabalaga moom nag daal di def performance yu jéggi dayoo ki nga xam ne moo koy tàggat di Carlo Ancelotti moom nag bi ñu ko laajee lu jëm ci mbirum ki nga xamante mooy Andolin bi nga xam ne jamono bi gis nañu muy def jaloor yu am solo ndax kat ay clean sheet moom jëng maam yomb na ko te it li muy encaissé bariwul moom li mu daal di xamle mooy ki nga xamante ne mooy Kepa mu léegi mu tane na amaana sax balaa match bii di ñëw fekk mu tane te bu fekkante ne tane na euh, fi léegi ñuy moom buy ñëw rek dafay titulairaat loolu la daal di wax moom kii di Carlo Ancelotti kon mayul yoon ki nga xamante ne mooy Andolin yoon mi nekkul ci performance yu bax wala yu bon limu wax dal bi ko journaliste bi laaje moy ki nga xamanteni moy Kepa mu ngi ñëw legi mu tane amana bala ñu jouer contre Granada muy semaine prochaine mu dal di wér te bu fekkente ne loolu am bu ñewé da fay tutelaire lolu dal di xamle kon loolu dafa nekk mbir mu doy war ki nga xamanteni nak moy andul len 5 matchs le jeu biñu tambalé saison bi ak legi jeu na tollé ci 5 matchs 2 buts la dal di encaisser voilà 3 clean sheet dal dina koy am li nga xamante ni moom la def ci ay save nag bu ñu koy xool dina toll ci 20 voilà 20 but yoo bal yoo xamante ni maanaam benn bu mu ci bàyyi woon rek mën na dugg daal dina koy def lu toll ci 20 xoolee daal daanaka chaque match dina daal di save lu toll ci 4 but yoo xamante ni waroon na mën a dugg moom ki nga xamante ni mooy Leen kon bu ñuy xool jamono bi mu ngi wane boppam équipe boobu di Real Madrid waaye coach bi gëmul ko benn yoon voilà moo tax nee na ki nga xamante ni mooy Kepa buy wér dafay te amaan na balaa semaine prochaine ci match boobu ñu war am seen diggante ak Granada dina fekk mu wér te bu ñëwee dafay dal di titulaire kii di Carlo Ancelotti moo dal di gaaral kàddu mel. ki nga xamante ni nag mooy André Ayew André Ayew xam ngeen dafa signé bu yàggul foofu la ca Le Havre tey jii nag mu doon joué li nga xam ne mooy premier match am ak équipe boobule waaye nag bu ñuy xool moom daanaka taxawul ci terrain bi da ñaari minute daal bu dee am na gannaaw bi ñu ko dugalee mu dugg comme remplaçant voilà bi mu duggee rek dégg maam dafa daal di am li nga xam ne mooy carton rouge ñu daal di koy dàq moom ki nga xam ne mooy André Ayew tey jii mu nekkoon koo xamante ni xëy na ñoo ngi ko doon xaar ci match boobu nga xam mu duggee mënul woon dimbali équipe ñu daal di koy jox carton rouge xam naa ne début la bu doy waar boo xamante war na ko mën a fàttaliku ci jogante googu nga xam ne ñoom doon nañu ko am voilà foofule moom sax mooy capitaine équipe boobule di wane jaloor yu am solo am équipe yu bari yi koy topp jamono bi ci Europe rawatina ci Angleterre gars yi lii mooy li gënoon fes kon ci kayiti xibaar yi kon ne si Sen Sports 221 the best sport news channel